بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وبارك حمدا لمن أورثنا الكتاب حتى به عنا نفر عتابا حمدا لمن أورثنا الكتاب حتى به عنا نفر عتابا مصليا على وسيلتي له خير الورى الذي أرائي قيله هذا وإني للذي يكفي الضرر عني توسلت بأسماء الصور فقلت راجيا قبول نظمي وأن أكون طاهرا من وصمي بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وبارك حمدا لمن أورثنا الكتاب حتى به عنا نفع العتابة مصليا على وسيلة له خير الورى الذي أراهي خيله واشرح فؤادي وتعظم فتحي في نافل عن بحق الشرح بوكي تجي سيطان نغلين دي نيو تي سين تلفزيون لامفال تي في دي سفزين عندي جتاي بي باخو عندي أه، موي سين ايميشن اصلاح الدارين نين باخ سين باك مام سين باك مام بالا باك مختار ا أه، ايميشن باخ نين كفاتي سا سني دور ريك نين تي واختاني موي جانغلم شيخ الخديم الله تعالى نتي بو جوخي جانغلم شيخ الخديم نين جوبل ليمان الاسلام lixsaan xam ngeen ci eh, jotaayu jamono yi noo ngi woon ci eh, waxtaane lu aju ci mbiru koor di ko nafar ngir eh, dañoo toll ci waxtoom te niñ ko baaxoo ci daara ji dañuy faral bu ab xew-xew gaaree ci xew-xew diine yi ñu indi ci ay bind nafar ko ak bokki jullit yi bokki talibe mu mel ni niñ leen ko waxee woon rek te ñu ànde ko noonu mooy eh, njëlbeenu jotaay bi dañuy waxtaan rek tuuti ci ngëneeli koor eh, te buñ ñu ngëneeli koor mooy eh, li nga xam ni aji woor ji mën na ko cee gañee ci ay njariñ waaye yaa nga xam ne mën na caa mën na ko cee koor mën na ko ci musal ci ay lor su ko defee buñ ñu noppee nag waxtaane leen ci atte rek lu waxtu wi maye ndax te mooy li koy defar ak ak yi koy yàq incha allah ah ngëneelu koor ni ko waxee woon du jeex du jeex koor ay ngëneelam du jeex nit waa alisa salaam jàng na ci lu bare bare borom xam-xam yi jàng na ci lu bare bare bare bare euh mo melni nak jëmmi koor ci bopam dafa am dafay séddli koo ñetti xaj xas ba ñi koy wor xas ba kat yi wala kat dañuy séddli ko ñetti xaj dañuy séddli ko ñetti xaj xam ngeen ni koor ci sharia ni ko jàngaloon moy al imsaaku anil muftirat Euh, bi niyatil ibada min turil fajr ila euh, mooy nga jàpp fi fajar ji fenke ba fi jant bi soo jublu ci jaamu yàlla nga xam ne daam euh, yéene buñ luñ ca war a yéene ak jamono ñu ko def su ko defee nit ñi way woor yi nag dañoo seetlu ko ñetti xaaj am na lu ñu tudde sawmu sufaha saw Moustapha aljahilin am na lu ñu tudde sawmul atqiya saalihin am na ñu tudde sawmul awliya siddiqin sawmul sufaha mooy kooru dof yu réer yi maanaam mooy nit yi neen yi rek atqiya saalihin mooy ñu ragal yàlla ñu sell ñi awliya mooy aarifuna eh, billahi nit ñu kawe kon nit ñi seet woor la ñuy seetlu ko ñetti koor moo tax léeg-léeg nga gis euh, ndax nit ñi nag ni ñu seetlu ko nag ci ibaadaat yëpp tam nag lañ seetli ko moo am bàyyi tere am na yoo xam ne ñëpp ca am na yoo xam ne dañ fay wuutee as ba ni nit ñi euh, ni seen i yi toll ni seen i daraja yi euh, li mu tuddee kooruk safawul jaahilit de mooy way réer yu dof yi mooy seen koor mooy koor goo xam daal da ngay bàyyi lekk ak naan bañ a sëy rek ci la yam waaye yeneen cëri da ngeen di baye ñuy def lu leen neex ki nga xam day wor du wattu làmmiñam ci fen du wattu làmmiñam ci jëw du wattu làmmiñam ci rambàcc mooy mo ab diggante jëw moy nit ki ci wax ni ne bu ko déggee du ko neex fen mooy wax loolu deug di giñ fen di wax lu ñaaw ak yeneen yo xamni yu bon la te làmmiñ di ko def du ci bàyyi dara du wat du wat ab jisam ci xol lu haram ci xol awra rawat nak xol tarub jigen jamuru jigen ak ya demé non yépp nak ci xéti bànneex yoy mo xam jëm ya ngay nekkal den gis mo xam sax da nga leen di seetaan film ya wala ca photo ya mo xam ci internet ya wala fu man doon ñu bari dañuy wor waye japp ni koor da xontu rek sétane film bu len neex film bu fekkee ne ay ay ay ay melokan yu tarub dataan xam day bànneexal bakkan lolu ab bu waré da ko wara euh, moytu nekk non deg bi tam di mooy sàmm sab dégg ci dégg lu jëw ak rambaaj xeet yu mel noonu yëpp ak yéen ñuy bànneexoo ci mboolem yu xaraam yi xam ne ci ay wax kenn du ko dégg lépp loo xam ne araam naa wax dafa araam a déglu daal euh, nekk noonu du du du gémmiñam wala baatam ci wan lekk lu xaraam buy dog ak xeet mel noonu yëpp mboolem cër yi daal ca loxo ba ak tànk ya du leen wattu ci mooy yàlla da leen di bàyyi rek ñuy nekk ca la leen neex su ko defee eh, bu waxtu doge mu doge xaram nee na kookee mi ngi mel ni koo xam ne day toj ab ab kaas am néegu ñax wala néegu ñax sax tabax eh, day toj tabax tabax fa wala koo xam day tox ta toj ab ab tabax fa ab ab ab ab ab baraak loolu lay nuróol ah, loolu lay nuróol eh, kon samu safa al jaahilin mooy koor goo xam daal da ngay lekk bàyyi naan bañ a sëy waaye ci loolu rek nga yem yeneen yu xaraam yi bàyyi woo ci dara ca la ñuy xool ak la ñuy tudd ak lañuy ñuy eh, déglu bàyyi woo ci dara eh, ñooñu leen di sa sam di eh, jaaj ci ni kam min saimin laysa lahu min sawmihi illa al-jumu'a wal hatash ak bari waa ñuy woor seen koor googee bari naa ko xam kooram googee xiif ak mar rek la ciy jële am na ñu ni mooy kii dogeeru xaraam am na ñu ni mooy ki nga xam ne daal du teye ay cëram amna ñu ne ki eh, woor ba ngon dom koor moy ko xam day baye lu dagan li di do ca haram amna ñu nañu moy nga xam day wor ci lek lu dagan ak naan lu dagan di do ci lamagne jàmbur ndax jew alhamdu ko lek lek yaramu nit root cëram la kon eh, koor gu yem ci bàyyi lekk ak bàyyi naan rek ak bañ a sëy amul solo te mooy koor ñu ëpp ci nit ñi nag ñu ëpp ci noonu foofu lañ toll te foofu nag du du niveau bañ soxla dëgg dëgg dëgg niveau bu acceptable ba dëgg du loolu du bàyyi lekk bàyyi naan bañ a sëy rek waaye di jëw di fen dara rambaaj di déglu lu xaraam di xool lu xaraam te surtout ni mu yomb nag surtout nag ci jumtukaay yi ñu jëfandikoo léegi nga xam ni euh, xool ci lu xaraam ak seetaan ko dafa yomb ci euh, ñenn ci surtout gone yi nga xam ne dañoo foofu dañ ko métu kooru ñaareel mooy al aqiyatu saalihin mooy gaa yu baax yi mooy ñi nga xam ne bu ñu niñ bàyyi lekk bàyyi naan dañuy téye seeni cër ci ay bàkkaar yooyu juróom-benni mbir moo koy mottali mooy nga wat saw làmmiñ ci fen ak jëw ak mel noonu xeet yu ñaaw yépp ci lamba boo noppee nag nga saxal làmmiñ wi ci e, tudd yàlla ak jàng alxuraan wala boo nga noppi loolu mooy kooru làmmiñ waaw ah, e, di ci di ci di ci wax lu bax lepp lu caaxaan la ak neen ak i léggéen akum po nga sam ci saw euh waye nga saxal ko ci tudd yalla ak jang alcorane jang sira ak def lu bax ah euh, kep ko xam dal teewul aw làmmiñam ci bakar yu mag yi fen ak jëw ak ramba te moy yomb yo xani ni ñi fen du dara nga def ni defe mënu euh, ko ba te serigne bi diko tudd lu bare bare bare ci mbindam kooka ma ngi neen ak euh anas jeul ci yonent sallallahu saa wasallam ni juróomi mbir yi dañuy dog koor alxiibatu wa namimatu wal kadib wal yaminul kaadiba wa nadaru bi saxwa nee nañ juróom yi dañuy dog dugg ko saraxan waaye da koy dog xaqiqatan jëw rambaaj fen ngiñul fen ak xoolu bànneex yooyu day eh, eh, dog koor kan intuwaay saasam aay na ko ci bërëb yu bëree bëree bëri maa saama man dalla yakul luxama naas ki woor di di di di di lekk yarami nit ñi wóorut wóorut wóorut waaw képp koo xam ne daal mënta bàyyi def lu bon euh, ak def ak mooy yàlla amul aaj ci muy bàyyi ak lekkam ak nag yaa bàyyi ak lekkam euh, yi nga xam ni mooy dëgëral euh, som xeetu saalihin mooy gaa yu baax yi juróom benn mbir la bokk na ca wat sa làmmiñ bokk na ca wat sa gis khulil mun mën min absarihim yalla neena ñi gëm yalla nañuy dam seenu gis bayil lu ah bet kooram moy nga bañ ta xol lu xaram ndax xol da bari lu muy yaq lol ah ñettel ba moy fek sa degg ci lepp lo xam lu sib lañ wala lu bax ndax lu harama wax lu haram na degg lu ki jow bu gisul ko degg lu du jow ah boo amee gan nit ko xam ne day tudd fu mu da fay tudd deri jàmbur lam jàmbur rek de de de ko moytu bo mané bako mané الصماعون الكذب أكلون للسحت الفنان بمية تكو نيو نيو مينكي بولي ديغلو لبن ديغلو حرام أه، فلا تقعدوا حتى يخوضوا في حديث خيري بولين توغي في نيو يقي داري جامر سيرت دين نيو باخ بولين توغي نيو دم لين لوكما انكم اثن مثلهم ميم بو توغي اي نيت نيو جو سوت دي يقي داري نيو نيو نينا دا غاي دم لوكما donte xëy na jëw mën naa am am na luñ ci daganal mën naa am ci jataay ñëw dañ ci ñëw tuuti ci ak leeral waaye daal euh, nañuy moytu yooyu maanaam dab ñetteel ba ñeenteel ba mooy fekk say cër yépp loxo ba tànk ci jëfandikoo ci dox ak mooy yàlla luñ sib fekk sa biir ci lekk loo xam ne lu lënt la waxtu wa ngay dog surtout ndax tey cër yépp nag ñoŋal leen ba dog jot itam nga dogeelu xaraam euh, loolu itam daanaka du am njëriñ lool nag ndax day mel ni koor ga li ñu doon li ñu def ci yow ci bëccëg bi corps bu la travaillé lii liggéeyam dëgg bu ko defee ci bëccëg gi su ngoonee euh, wax dëgg yàlla doo tara def lu ñu lu ñu tere lu ñu tere doonte seytaan dana ci defi pexe nag ndax xam ngeen fii ci réew mi xew na fi léegi euh, ñoo xam ne dañuy woote am po ci weeru koor donte ña ngi ciy tudd diine di ca woo ay nit ñu ñu xamoon ci dajey diine waaye nañu xam ne diine moom mëne ne soutien inventé dara li fi yàlla bàyyi woon jàngale ko man ñi xamoon ko loola lañ xam dundal guddi ci wéru koor dañuy jang alquran gina bu ñu nafila ba sax ñu wotari waaw ndax tarawih lañ ci xam tarawih yi day guddee jeex suñu yendo liggéey ba ngoon jot ak xif ak mar nim sonne nga dogu ak ni ngay sonne nga nga nga dolli ci dem julli ge def tarawih wax deug yalla euh, bu boba da nga dem sa kër tok noplu nak teud nelaw bo mu lelu nga teud nelaw waye am nañu ci xewal programme léegi ay ay way ak ay fecc ak xaan yooyu Euh, ni dañ koy dundalee guddi gi fekk dañuy wut luñ am rek su fay loolu tam mbirum shaytan la mo xamni nañ koy moytu koor dal dundal ko wessu euh, xiyaam lay lii moom lañ lañ lañ ci xam dal lañ ci xam aada liñ ci xam dal moy loolu trawih moy naafila yooyu su fekkee doyut euh, taxaw guddi nga def ko moy naafila loolu lañ ci xam ci dundal weeru koor yeneen yu wute yoy nak ay mbir la yo xamni ko ko moytu mo gën kon ko wor ba nga wara sey sa cër yépp ci lepp lo xam luy dog la rawat nag du dem ci ay jataay yoo xam ni ay góor ak jigéen yu dencantew dañ fay daje di man neexoon seen biir loolu moom moom moom day teetale koor gi lañ ko doon sant ci euh, defu ko képp koo xam ne yaa ngi def loolu woor ba ngoon jot ngay wuti ay bànneex ci anam googu yaa ngi mel ni wala ngay lekk yaa ngi mel ni ku doon toj ab terrasse dem tabax fa ab baraak su ko defee euh, euh, lekk du bari waay bi moo ci am solo waaye qualité bi moo ci am solo qualité mom solo motax tam li nga ñàkkoon na lek ci bëccëg yépp su fekkee da ko bolé ci guddi yépp lek ko ben yon tam do am jëri ñak ndax lañ bëggën ko def ko ci yow moy bu bëccëgee nga xif woyef ba su fekkee bu xëddé da ngay lek lek lek ba do mëna noy euh su ko defé su bëccé bëccëgee lañ bëggën ci yow moy biir bi xif su ko defé dara ji sat sab xol woyef yalla man ca dugg setan man ca génn lolou luñ ko am loolu loolu loolu ñu ko te loolu lañ ci doon jublu la waaw roba say min xaduhu min siami aljuux wala xatas ñu tuba sal waxaat na ko am nañu loolu xëy loolu la jublu la loolu suñ tubaab fa roba say min maa jamaa laysa lahu fii siwal majaa nee na bëri waa ne koy woor du am xiif rek ndax fa sawma ini suma kullu udwin an kulli ma yufdi fatan li saxbi amsik an nadari lil xaraami wa sami wal masi mahal kalaami wa kullu fikratin radiyatin kama amsakta an aklin wa shurbin wala imaam même xalaat bi sax daf koy eh, téré mom kon bok na ci nga fek sa cër yépp dal ci eh, bañ ca lek lu haram bañ ca lek lu euh ak lu daganul mo xam naan sangar wala xeet yu mun wala wala wala sax alal joo momut yépp dañ koy téré jot nee juromel ba ci dimbali eh, koruk atqa atqaa saalihin mooy bañ bari lek waxtu ba ngay dok baña lek lu bari yonent bi amul benn luñ yàlla sib ko ko feesal lu mel ni biir biir daal nee na koy feesal ndax feesal ko musibal day jur kon koor yi itam li jubloon mooy nga xiif mar euh, woyof sa xel ni sa borom waaye su fekkee ni li nga rëccën ci li la rëccën ci bëccëg bi yëpp da nga koy dajale waaw ba ba ba ba ngoon mel ni ab ku ko defee boobaa doo am njëriñ doo am njëriñ nag koor gi doo am njëriñ du jeexital moo tax laan la ko te taxoon jiitu su nañ koy bàyyi xel Euh, surtout euh, pour ñu am al atqiyaaw maanaam bu fekkee da ngaa ne ci niveau bu njëkk ba rek muy kooru al soxojaay la nga bàyyi lekk ak naan ak sëy rek la boo moom mooy mooy tax yi ñu gis ñu koy dañuy woor ba weeru koor wi jeex ñu nekkaat fañ nekkoon duñ fa jóge wala sax ñu nekkaat fu yées te mooy woor bañ ñu suba la korite wala ñu tay la korite ñu daal dem tëggi ay baal ak i ak i ak i soirée ki daasaat góor ñi ak jigéen ñi dajawaat fa di defaat lu bon di mooy yàlla ñooy day mel ni moom maanaam koor jeexitat ñoom dara moom koor waaye boo toolee ci kooru atqiyaa saalihin nga xam ni koor jeexital na ci yow mooy sa cër yooyu nag nga bàyyi ko mooy fekk sa gis fekk saw làmmiñ eh, fekk sa dégg waaye soo dogee nga bañ a dogee lu xaraam moytu ah, booy dog nga fexe ba sab xol di teewlu sa borom waaw ah, su ko defee di di di di di yëg ni li ma doon def day jaamu yàlla gu màgg la buñ ko nangoolee li may jural mooy tax ëllëg waaye suñ ko nanguwul day pertement ndax. Eh, koor da nga dul xam yow soo fekkee weer da nga ko fekkewaat beneen yoon ñëw dem bis boo woor ba ngoon jot ngay dog da nga dul xam yow suba ndax da nga ko fekkeem déet wala suba da nga ko talam jamono ji nga am nii loo ci mën a def def ko ci waaw bisu koor bi nga yendoo soo xëyee loo ci mën a def ci lu baax def ko ci ci yéene ci ci sa xel ak sa jëmm ak sa lépp rek ci lu baax ndax da du xam su ngoonee da nga mën a euh, woorateem euh, déet kon loolu mooy sawmul aqiyaau aw assaalihin mooy kafu jamiil euh, jawaarihi anil maasi boobu nag ci nga yége ni ki koy war moom suñu waree du mën a baali du mën a dem ca sóoba du mën a dem ca euh, soire ba ndax seytaane tënk gi ñu ko tënk sànni ko ci euh, lëgg-lëggi géej gi day fekk moom itam mu xiif mar suñee tay la ko ca ngoon bu ñu ko tinkee bu del see forme lay dikke boo xam ni ak ak ak ak day day day day day sawar day sawar waaw day dikkee ci sawar ak ak ak ne ci état boo xam ne état bu baax la ci moom pour <coughs> yak baaxal asaf gis na nak bu dee bis bobé toujours mi ngi jekko ndax dañuy gis ni euh shaytané man day melni shaytané yi sax mbirum bàtti la mel gis mbirum sayir ndax mbolem ko xamni lamuy liggé am pola mo xamni ak ma yalla ak tiaxan bu ko rek dañ koy tek ci suuf kon teug na shaytané su fekkee bu wéru koor jotté bu ñu tikki seytaane ñu ñëwaat nak ci même jour bi day melni ñom ñoo ñu lañu doon waxal seytaane doonte ñu nga and ak nit ñi di wor nak ah ñu ngi ànd ñu wor léegi nag dem nañ ba bëgg di tiñ ci seytaane ci biir weeru koor wi ba euh, ñu bari basculé nañ ci ay nit ñoo xam ne xamuñ li ñuy dugg waaye ala kulli xaal am nañu tawféexu am ñoo xam ne jàngoon nañ jee te xam ko te gëmoon ko te dundoon ko li ñu fi nañ ci nekk mooy bu ñu weeroo ba wooree ba ngoon nañu naafila tarawih bu doyu tarawih nañ dem xiyaam lay lii di taxaw guddi yi su doyut yi ñu mën a def bari na lool yoo xam ne dañuy dajale góor ak jigéen ñu ne ci ba ay barab di way di di joxantee xaalisa ak a caaxaan ak neen yooyu ay neen la yoo xam ne bëriwul njëriñ loolu affaire charan euh, ba ma ñetteelu nuyoo bu ñaan nuyoo bu ñetteelu nuyoo moy mooy awliya siddiqan moy koor xol sa xol dara ci ay neen du ca nek aduna kese ci soufey ji du la tax yitte yittewoo dar ah koor gog la koy dog moy nga xalal lu yalla sa yu sab xol ajet da lu yalla sa bëgg jëm ci lee lu yalla rek booba dog nga koor googu mooy koo gari la ñaa uh, sayyatu atu siddiqin xasanatul salihin waaw dañuy gis ni sax uh, nit ki so waré ba ngon jot muy xalaatawutu fi muy ndogo sax dog na ndax da nga wara baye sa bop ak muy as-samadu as-samadu as-samadu mooy ki jublu ngir mu faj aajo yi di jox nit ñuy lek koku euh, boko doylo do wuti dara nga xam ne mom ñu mag ñi ñoy egg fa ñoom egg nañ ci ni bu ñu wooree ñoom seen xol lu dul yàlla dañ ko ci genné lu dul yàlla nekk seen xol nga xamni seen lañu japp ñawtef moy moy la deuxième catégorie ba di jàppe euh, lu baax waaw ñaawteefu gaa yu dëgg yooyu kawe yooyu mooy yiwu oh, gaa yu baax yooyu ñu mu njëkk a wax léegi nga xam ne ñoom seeni taal du dem ci yàlla lu jëm ci yàlla rek euh, man lu jëmul ci yàlla ñoom am polañ ko ay caaxaan ay nen xam ne baax yi ñu mag ñi ñoom ñoo fay egg nga xam bu woor ñëwee da ngay gis ni luy yëngatu àdduna yi moom bu dee nañ ci doon yëngu sax dañ koy teg ci suuf maanaam luñ soxla woo dara ci ci ci koor ci xeeti doxi àdduna coow yi mën nañ ko rek suuf euh, kon euh, koor ñetti daraja lam am na daraja boo xam ni mooy asfaul jahilin bariwul njëriñ bàyyi lekk ak naan bàyyi sëy la waaye di mooy yàlla ci yeneen yépp nag euh, gokkoor bariwul njëriñ ñëpp ci nun nag moom la ñuy woor moo tax suñu wooree nga gis ni koor gi jeexital ci ñun ndax dañuy mën dem ca baal ya a dem ca soirée mën dem ca suuyaak foya xeeti ñi dañ ci man dem nga xam ne koor jeexital ci ñun euh, kooru ñaari mooy nga fegu ginnaaw ba nga bàyyi lekk ak naan ak sëy nga bàyyi fegu say cër ci mooy yàlla mooy bët ba bët ya ak nopp ak làmmeñ wa ak tànk may dox ci lu xaraam euh, su ko defee ba fegoo yooyu mooy kooru ragal yàlla nga xam ne moom ku ko woore boo jeexitalee xeeti poye bu ñu la ci doo ci mën a wuyu waaye kooru siddiquuna yëg euh, mooy aarifuuna billaahi ñooñu mooy seen koor dañ dut xalaat lu yàlla seeni xol duñ ci nangu ñoom jàpp nañ sax wuti ndogu ci bëccëg weeru koor sax eh, xalaat lu du eh, yàlla ñoom duñ ko eh, nangu soo ko dee kon yooyu yenn la ci ngëneelu koor kenn ko nag yaay seet kuréel boo cay topp yaay seet kuréel bu cay boo cay nekk koor daal di fo ak a caaxaan ak neen mooy tax nga gis bu ñu wooree xeeti mariage yi xeeti lido yi nga gis fuqaay di ci ubbee ñii naa def xaram ñii naa xaramul bu dee ci safaw jaahiloon moom du xaraam ci ñoom ndax defoon ko moo tane ña nar a jëw mbaa rambaaje ka fenn ñu xut wax yaa toogan di lidoo wala ñu carte mariage moom moo tane ci ñoom moo tane waaye alqiyaa saalixuuna yi moom nga xam ne dañuy euh, jàng alquran wala xasida wala tudd yàlla wala ñu toppi jataay ya ñuy jàngale ya ñuy waaraatee topp tafsir quran yi ak yooyu ñooña lee dee xaraam ci ñoom kuréel ña tamit waxaale wuñu leen waxaale wuñ kon léeg-léeg ñu ubbee ci ci niveau yee nit ña toll la ñuy ubbee ki nga xam ne daal moom kooram moom day bàyyi lekk naan ak say doo nga lay bàyyi su toogee deful dara day jëw wala muy rambaaj wala muy eh, seetaan film yoo xam dafa xaraam boo waa kooka nag di lido wala muy mariage yooyu mooy xawatana ci moom ndax yooyu xëy na doonte eh, du lu ñu soññee itam xëy na xaraam ba eggu ci xaraamu ñaaw yi nekk ca ndax la muy bàyyi moo gënoon lee bu dee keneen ka nag ñu ne ci niveau 2 bi nag niveau 2 bi moom loolu day xaraam ci ñoom ndax daa am leen lu leen gën a ñor te mooy jàng seen wax alxuraan jàng seen xasee tudd yàlla ak seetaane jotaay yi ñuy jàngalee alxuraan ak yéen ñuy firi alxuraan ak xeet yu demee noonu daal ak conférence yi incha allah su ko defee euh, bu ñëwee ci ahkaam yi nag xam ngeen di jotaay bi yooyu noo ngi taxaw woon ci euh, yàq wax nañ leen yàq koor ñeenti mbir la sëy ak i xeetam wàccu ak i xeetam naan ak i xeetam lekk ak xeetam. yooyu mooy waral kafaara ginnaaw ba ñu fayee ba noppi euh, sëy bi nga xam ne nag day waral cangaay euh, te di yàq koor mooy sëyub ku majeur moo xam moom moo jote wala moom lañ joteel gone gu tuuti gu ndaw goo xam ne mëtagut a sëy bu dee euh, dañoo joteeg moom sëyub kooka du yàqu lu dul ci dara génn ci moom loola nag euh, lu xaw a tumaranke la ci ak dégg ah yooyu nag ci aju mooy euh, génnu mën ni ci lu dul sëy génn mën sëy day waral fay waaye du waral kafaara lu dul nag euh, boroom jublu ko ca te yooyu mooy mu nekk ci xool walla xalaat génn mën ni kese boo xam ne ànd ak sëy dana yàq koor waaye du waral kafaara lu dul ay charte mooy xool ba kooka saxal ko mu yàgg lool te jublu ko ca te fekk ni booba euh, bu ko daa def daawu ko lu mel noonu daakaar bu dee bu ko daana ko def xool ba daawu ko gaar tam boobaa dañ koy jégal day fay rek waaye du du woor kon euh, man yi su génnee ci xool wala xalaat ànd ak bànneex ba mu baaxoo àndal te kooka saxalut xool ba day waral mu fay waaye du kafaara amma su fekkee nag daa xool xool bu yàgg wala xool bu gàtt te xool bu gàtt baaxoon na su xooli man yom génn su boobaa day fay waaye day kafaara comme bu doon euh, sëy bu doon day booloo di waral fay ak kafaara amma mas yu nag day waral fay waaye du waral kafaara mas jàngoon nañ ko ci bi ñuy jàng euh, taxaara ndox la moo xam day génn ci góor kanamam bu dee taxaw day taxaw lu yàgg di bu taxawee lu yàgg bu bu bu reesee yooyu ci la mas yu di génn loolu nag day yàq koor xale yi nañ koy bàyyi xel surtout ñi nga xam ne dañuy euh, yendoo seetaan yenn film wala ñuy nekk euh, am na ci loo xam ne moom daanaka nag moom moom moom moom ñaawal yàlla la ndax dangay gis gone yoo xam ni fu mel ni ci barab yi nga xam ni am ndox dafa am gone yi fi ne bu ñu wooree seen ndàqum koor ña ngi koy defee ca géej ga gone yu góor ak gone yu jigéen ñi àndandoo ca géej ga di di fooka loolu moom loolu koor loolu moom tooñ yàlla la ak ñaawal yàlla te it yàlla moom euh, kenn du ko tooñ kenn du ko ñaawal weeru koor daal yooyu même dañuy ne ci réewu jullit boo xam ne kenn xamut jullit gënu muy doxee rek waaye am na ci loo xam ne même bu fekkoon ne parce que nit ñi itam mën nañu ne imposé liñ gëm fii boo waxee rek dañuy bàyyi nit ñi lu def kenn ku ne la nga nañ la ca war nañ génne décret ni kat ah, weeru koor ñëw na dañuy tere gone yu jigéen ak gone yu yi ñu nekk ci plage suñ mënta ba dem ci plage yi itam nañ leen ber góor ñu nekk fee jigéen ñu nekk fee waaye gone yu góor yi ak gone yu jigéen yi ànd ci weeru koor Eh, di sangu ca biir ndox ma di mooy yàlla def te am naa sax war a ña nga ak seen ko te xamuñ ci dara yooyu yëpp ay mbir la yoo xam ne eh, yii nuy dalee mënuñu ko teg ah, yàlla moom li mu xam li mu li waxoon nañ ko fal yaxdar li ñu xaalifan amri an tusibum fitnatun aw na bu ngeen bàyyi wut eh, lii ma leen tere dina leen teg fitna ci àdduna wala mbugal ma àlaxira fitna nag mooy accident yu bare xeeti catastrophe yi ñu wax yëpp loolu moo la yàlla zahara al fasadu fi l barri wal bahri ma kasabat aydi nas li yuziqum ba'da allazi amilu la'allahum yarji'un neena ñaawteef ñaaw téef nga ma nga ca jiiri ja ma nga ca géej ga ma nga ca géej ga ma nga ca jiiri ja ma nga ca weeri koor ya sax wa gën a baax ma nga ca ña ngay xotti xormay yu koor kenn wu toxti xotti xormay weeru koor say wëj say njaboot di ko def nga xam ko bàyyi leen ci loolu musiba la moo xam ne kenn xamut nu nu mu toll julli dañoo war a góorgóorlu ci xaq yàlla yi sa njaboot ku ci xotti sa xaq wala sa xorma nga attan na defanteeg moom su xottee xorma yàlla wala xaq yàlla nga noppi ni ceel yu benn seen niwu ci lolou tam du responsabilité du responsabilité kon kor eh, sey jotté soxna bu dara génn da yak rawat na bu dara génné bu dee ku wut té day xalaat jigen wala mu diko xol xool lu yàgg bu dara génn ci man yu génn ci mom nga xam day and ak yéeg ak toujours day yak kor day waral kafar fekkee moko djublon su fekké nak man lay day génn te du xol bu yag nga xam ne ko ci won man na fay waye kafar dañ ko teggil mas yu nag mooy bu kanam gi taxawee reesaat loolu ci lay génne loolu da yàq jàpp da yàq koor waaye du du du du du waral kafaara moom day fay rek waaw ah. eh, koo xam nag danga ngaa jigéen ci weeru koor fekk mu woor moom itam da koy kafaaral yaa koy kafaaral waaye nag mooy da koy eh, kafaara la waaye mooy fayal boppam moom mooy fayal boppam naka noonu ko bettoon nit ko war sotti ndox ci ci ci ci ci ci ci gémmiñam mu jàll yaa koy kafaaral waaye mooy eh, fayal boppam mun ba njëkk mooy sëy yooyu moo caaju génnu ma nii da cay bokkaale ci anam googu ak génnu ma si ñaareelu ci yàq koor mooy waccu te tay ko moo xam maccu mu bari la wala mu tuuti ku waccu te tay te amul benn illa day war mu fay koor ga kafaara amaa su dee not da ko waccu nag da yàq koor ga ah du yàq koor ga maanaam bu fekkee natt da ko génn du yàq koor lu fekk dara daa dellu ci biir su fekkee dara daa dellu dana yàq koor ga ah, waaye su boobaa du du du du kafaara kon wàccu day yàq koor su fekkee ni yaa ko tey lu mu tuuti tuuti da yàq koor su fekkee ni tëyoo ko nag lay tax mu yàq koor mooy mu dellu bu delloo nag su fekkee ni tëyoo ko da ngay fay doo ngay kafaar bu fekkee yaa ko tey nag da ngay kafaara ba noppi eh, fay ay ay ay lor nag. bu delo mom du yak koor donte man ko yabbi itam da gis ñoo xam ne bu ñu war dañuy teufal lu bare bare bare di ay lor du yak koor donte da nga socc di sekkat sa dënd di génne ay ay lor yu fat yu tar lool man koy wannaat du yak koor donte man ko yabbi itam ak lu bare bare du yak koor kon ay tiflit mo xam tiflit ko socc la di sekkat di yabbi lo xam day xawa fat day xaw tal loola lu bari bari bari itam du yak koor donte koko man na wannaat euh, boobaa du yàq koor waaye wàccu lañ wax lekk ku ñu wàccu mu génn bu dee yaa ko tey loocu day yàq koor bu dee da caa dellu da daa delluwaat moo xam laa dellu naa nooy day ko tey mu delluwaat wala nga tayeen génn mu noot la delluwaat day eh, yàq koor incha allah euh, waral kafaara la des mooy naan wala lu ndoxe egg sa put moo xam mu jaare ci gémmiñ wala ci nopp wala ci bët wala bakkan fu mu doon lépp loo xam ne dafa liquidité su jaaree ci beut wala nop wala bakkan wala barab yoy ba nga saf ci put mi nga yek ko da yakkor am na ci kuliri yi tuufaa yo xam boko boo da ngay daal yek sa put bi nga xam ne boo so day gen yoy day yakkor ah comme lu mel tay nit ki euh, su fekke moko tay moko tay day waral kafara day fay bu nop kafara ama ah, su lo delo ci njuumte nak euh, nga xam lu mel ni koo day gallaxndiku di di di jàpp gallaxndiku ndox ma gi ca put ma not ko su boobaa day kafaar rek waaye du du du du du fay maanaam day fay rek waaye du kafaara ndax ndax ndax ak tayef amu ca kon lañ ci na ma mooy nga jublu ko def ko nga xam ne xam nga ni lii euh, lu mel tubaab bi ma xam ne ko tey wala leneen loo jël def ko ci sa cër yooyu ma ak da yàq koor ah, su fekkee ci njuumte nag du yàq koor ngi mel ni ku lekkoon ci bëccëg te juubu rek waaw ah, koo xam day day day xëdd ba bët set dafa ni bët setul boba lola eh, da yàq koor waaye du waral eh, du waral kafara wala ko xam daa defe jant bi sona mu daa di te jant bi soogut koku bu ko lere ni jant bi soowut eh, kooram da yak way kafara du war ndax def na ni war def kon eggu lu ndoxe ci put da yak kor mu ci put mi dong ba saf da yàqur bu dee liquide ak lu mu mën am moo xam mu jaar ci gémmiñ gi wala moo xam jaar ci bëdi wala mu jaar ci bakkan wala mu jaar ci nopp yi fu mu ci rek ba àgg ci pour mi da yàqur euh, ñetteel ba mooy euh, ñeenteel mooy lekk lekk wala àggu lu matière bu sec ci ci ci estomac bi ci ci ci ci ci ci kii wala lu ndoxe loolu lu ci egg ci bi te mooy mu ci bàq ga te amul nit ki tay ko te amul benn ngant moo xam fu mën di jaare ci ci kaw walla suuf ba àgg su boobaa ah, day yàq koor <coughs> ah, liy jaar ci suuf nag benn bërëb rek la mën a jaar mooy ah, suuf gi fi muy génne foofu moom fa jaaree àgg ca bàq ga day yàq koor bu fekkoon lu mel ni xeetu diw la wala yooyu jaar ci benn ci bën bëni yaram yi wala ci xeet yooyu àgg ca bàq ga lool dañuy yàq koor kon nga gis ni am na foofu wuute mooy lekk ak naan am nañu wuute naan boo yeggee ci put bu dong day yàq lekk nag uh, ak bu egg ci bàq ga lekk nag moom egg ci put bi donc du ko yàq faaw mu egg ci bàq ga nit ki su wannoon dara lu sec lu mel ni bud wala dërëm wala dara wala ab doomu gerte wala dara xaw xaw ci put gi mu xaata du mu génnaat du yàq koor lu ndoxa ko coroxaan nag bu xasee àgg fii doonte yàbbi na ko itam waaye àgg na fii doon xax dëgg tool day bu dee nag àgg na ca bàq ga istimaag bi mooy lu ndoxe la wala lu sec day day day yàq koor mo xam ci gémmiñ gi la jaar ci kaw wala ci bob wala mu jaar ci suuf wa li euh, suuf gi na foofu do nga mëna jaar yooyu fu mu jaar du yakkor masalan piqûre du yakkor koor maanaam nit ki ñuy piqûre ci jekki kayam wala yu mel du yakkor koor euh, ba ci euh, cëru goor cër yoy buñ ci piqûre rek du yakkor koor piqûre du yakkor koor kon dal li yakkor koor na jaar ci kaw wala ci suuf waaye na egg ca eh, bàq ga moo xam aw xeer la wala lu mën doon eh, fu mu mën jaar day yàq koor su ko def fekkee ak tayef da caa am nag su boobaa day waral eh, kafaara day waral fay waaye waral kafaara kon yooyu mooy yi nga xam ni day waral fay waral kafaara sëy wala génnug man nii ak wàccu ak ah, te tayu ko wala tayu waaye dara jàllaat na ci ak eh, naan wala lu ndoxe egg sëpput wala baag ci baax nga ak lekk te mooy lu sec matière bu sec egg ca baax nga ko moom put gi mu fee ma doy yooyu yëpp nag bu ci ne loo xam ne nit ki moo ko tey def ko nga xam ne amul benn ngànt moo ko jublu def ko su boobaa day waral la fay koor ga ba noppi so wéro koor wi jéxé da fay kafara inshallah buñ ci éggé dañ wax lan euh, euh, kafara kan euh képp wax ni jël na yenn ci yoyu nga xamni day waral fay kafara ci yoyu ñu wax euh, da war kafara kafaara moy na nek ci koor wéro koor bu leen kafara yu yenen koor yi deetu leen euh na nek ko tay bu dé ko joom du kafara na nek ko xamni mo jublu jël loola du dañ ko imposer dañ ko forcer Eh, na nekk koo xam ne xamoon na ne weer daa am xorma kenn waru ci jëfandikoo yooyu na nekk koo xam ne daa faalewut eh, may weer wi nga xam ni maanaam amul li jox tawil xarib nga xam ne moom daa def la war def lépp ba noppi gis ni lim def juum na lu mel tukki jàpp ni daa a dog te fekk tukki ba diir ba mënta dog yi mel noonu tawil xarib lañ koy eh, tudd yu mel noonu ca la bokk jàpp naa war naa doog te dugut wala koo xam daa gis weer wi jàpp ne bis bi wóor bokk ci weeru koor wala ko xamne da daa wéradi bis sangam bis ba ñoom mu jàpp da wéradi rek wala jigéen jo xamne da gis bax bis ba japp ni bu ca ñëwee dana jot bax mu da dog fekk jotagul bax yu mel non yépp wala sax ko am da jëw ci wéro ko japp ni mom euh, comme neeñ jëw da yakko rek dog na yu mel non yo ñu tawil euh, manam bahit euh, ak tawil xay yooyu ci tawil tawil bahit yooyu yépp ko xam euh ilam sukkandiku manam du du du du dara Eh, Lila la dal dalagu gula nga japp ni dalay dal su koka da fay waral eh, kafara kon eh, lolou lañu ta'wil taawil ta'wil xari moy nga sukkandiku ci lo xam lu nek la moy nga nga nga nga nga dok ngir fatte wala ñu ñu ñu forcé la nga japp ne les ci bi yo soko ko ko japp nga daal di jàpp maanaam nga kon di lekk fekk nga waron nga japp lola kafara waru ca ndax li nga sukkandikoon lu wer la lu mel ni ngay tukki jàpp na ngaa war a dog fekk booba tukki ba manqué na booba euh, taawil euh, bàyyit la taawil xel mën ngaa euh, dog wala nga feebar jàpp ne war ngaa dog yu mel noonu yéenee dog ci guddi gi xëy dog te fekk na booba distance mutul loolu yu mel noonu yëpp tawil xarit bi tawil bay nag mooy nga jàpp na ngay feebar te feebaroo te fe da nga war nekk ba feebar xaqiiqa nan doog a dog wala bu dee jigéen daal ne ba gis mbaax wala mel noonu doog doog waaye kenn du dogal di gisu ko mbaax wala mel noonu ah daañu ci sartam lay doctewal kafaara na jaare ci gémmiñ gi bu jaarewoon ci nopp yi wala ci bët yi wala feneen day dog koor ga rek waaye kafaara du ca ah, war waaye daañu sartam naag ca baax ga la àgg bu fekkee am ci put ma rek day waral fay waaye du waral ah, ah, dog donte lu ndoxee rek ba egg ci put mi day yàq koor waaye du waral euh, kafaara kon xeeti ñeenti dog yooyu moom sëy ak euh, wala gén ma ni euh, lu mel ni wàccu génnew ñam wala wala lekk dugal ko wala naan wala xëy mel buy am kafaar na yii da ci dañ charte yi te mooy nañ nekk weeru koor kooka na ko tay itam moo ci gën a fes na ne weeru koor kooka tay ko daal moo ci gën a bari ci lu neex jàpp te la koy dog tam na ca gémmiñ ga ñaare nang ca bàq nga itam bokk na ci nga xam day dog koor nag yëkkati yéene doon naa wax léegi ci yéene ci jotaay yële yëkkati yéene wala delloo ko nit ku su fekkee daa yéene wana woor ba mu yàgg mu yéenee bañ woor fekk yéene wa lu woor su booba euh, kooram day day yàqu waxoon naa ko léegi lu mel ni nga nga nga yéene woor dem ba mu yàgg ñu téléphone la diw sangam man xew sangam am xew sangam ngeen damay tukki suba dama cey dem wala diw ni dama fi ñew wala yu mel non nga yene baña wor ngir tukki bobu nga yene baña wor ngir tukki bobu far nga dem ba ci euh demo te yene wato wala ngay dem ba ci barab nga nga ngay jaar fi barab ñu ni diw de ma nga barab sangam nga ni barab na naa manam nga nga nga nga dem bam mu nga ngay wor bam mu nga rom restaurant nga ni na dem ci restaurant bi agni nga dem fekk restaurant ba tëj wala jaayuñu añ nga ne naa wéyale koor gi déedéet yow sa koor ndax yëkkati woon nga sa koor ba noppi maanaam sa yéene ko delloon nga ko ginnaaw nga yéene dem rek maanaam yow maanaam boobu ba nga yéenee dem sa koor yàqu woon na kon mënatoo yee salaat euh, koor ak ak noonu euh, kon euh, yooyu yëpp yoo xam ne daal tey ci bëccëgu weeru koor ko ci dog day waral fay day waral kafaara am na yoo xam nag fay dong lay waral du waral kafaara mooy safaanu yooyu safaanu ñu wax rek ñu wax ah, xam ni <coughs> ah, dana yàq koor waaye du waral kafaara <coughs> yooyu am na yeneen yoo xam nag ah, du waral kafaara du du du dog koor waaw yi nga xam ne nag du waral mën naa dog koor waaye du waral kafaara mooy yii képp koo xam ne jëfandikoo na lenn ci yooyu dog koor te sart yu ñu wax topp ca su ba daa war a fay rek moo xam koor weeru koor la wala geneen koor gu mën doon lu mel ne kuy doon fay weeru koor wala ku doon koor kooru kafaara koor kooru nazar boo xam ne ràññewuñ ko ndax nazar bu ñu ràññee bis bañ ko ràññee su weesoo da dootu uh, taxaw doo taxaw uh, bu dee nazar bu ñu ràññee nag moom uh, nga xam ne bis sàngam la woon su nit ki daa amee ngant ba wóorul bis yooye wala dara dal ko ba wóorul bis yooye ba bis yooye jeex yooye la ràññewoon yooyu weesu weesu na daa woor nangami fan ci ci ci saxbaanu at mi saxbaanu at moom woro ko bam wessu yoy yooyu bo wessu weesu mënut a ñëw bu ma haye nak eh, des koy fay ci jamono ju man di don ah, ah naka noonu eh, ah kep ko xam daal dafa dok ngir ngant suy eh, fay koor ga kafara ah, du ca war ah suy kafaara kafaara du ca war ko xamni ko eh, dafa dog ngir waccu way waccu woon koo not eh, kafaar du ci war bu fekke dara da caa dellu su fekkee nag eh, dara delu ci sax koor ga wér na fa amna yenen yo yoo yu bare bare la yo xamni mom moom dañ koo jéggale nga xamni du waral kafaara bu weso ñent yoy dog dal muy lek naan sey ak waccu ci anam gogu ñu tudde ci sart yoy top nga xamni koka moko tay moko tay moko jublu la tax mu loola dal ko mom ak sabab lu nako ci genn anam gu man don ci ñu don leer ak yenen su baba kooku daa war a fay kafara su fekkee loolu amul nak yoyu lu ko ci dal te xam nañ ko gar xam nañ ko ci force suñ ko baña def wala dafa faté won juubu li ñu wax def ko te tay ko lu mel non su baba day fay rek wala euh, du kafara yu dud yoy nak mom du yak kor bokk na ci moy am na wàcc wàcc na ko génn euh, dara dellu ca yoy du yak kor lu melni ni poussière bi ne ci aw yoon wala euh, borom machine bojj bi wala borom machine wal bi poussière boobu muy naan wala xeet yu mel ak xeet yu mel xeetu poussière daal boo xam ne day dugg ci put nga xam mu wax loola leen la ci eh, eh, du yàq koor eh, naka noonu fajar ji fenk fekk muy lekk wala muy naan mu daal di gaaw yàbbi lam sexoon ñu ni allah akbar doo xaar asalaat xaw mi na asalaat xayru mi na naw mi nag amoon nañ menn mag mu amoon xorom buñ dadaa teg fone bi wala tek misa wala mi xëdde bañu bañu commencé ni allah akbar day xaar ba ñuy bëgg wax asrat xawru mu doga naan nga xamne day wax ni asrat khair mu fa lañu yéme dedet allah akbar ñu jëk ja fa lañu ayé so dégg ñu ni allah akbar ci heure bobu rek xamal eh, ni bayyi jotna su ko defé ñi nodd tam nañuy bayyi xel loolu ndax fi xamna naa leen mu andi jafe-jafe ndax nodd yi dañ jul xamé exactement noddu gi yéte gi ak noddu bayyi gi la nodd yi duggante duggante ci yenn barab yi waaye noddu yéte gi mom du taxa bayyi noddu yeete ngi tax bàyyi li gën daal ku ne amal jumtukaay boo xam ne soo déggee ak nodd rek nga xam noddu yeete wala gu bàyyi ndax léeg la nga dégg nodd defe ne gu yeete la fekk la eh, nga wala nga dégg gu bàyyi nga defe ne gu yeete la eh, fekk am problème wala boog nga néeg ba mu daanu soo déggee ba mu daanu bu ñu salaatu xayru mina nawm mi nga xam ne moom sañatoo lekk waaye foo déggee ak moom ba lekk te nodd gi daanuwul ba nga xam nodd guy yeete la wala guy wax waxtu julli jot na ndax waxtu julli jot na moom bu ñu allahu akbar rek bala ñuy sar xaw mi defek day nga war a eh, eh, bàyyi su ko ya, dee kon eh, waxtu bu fekkoon nga sex dara nga yàbbi ko itam dañ mm, koy jégle koo xam ne mën da ko not wala mas yu génn ci xool jigéen xool bu gàtt bo xam ni tëyu ko maanaam loolu du ko ndax tëyu ko bu dee nag moo xoolal boppam wala mu yàggal xool boppam da yàq ko waral kafaar nañ ko xaw ay lor yu wan daje ci gémmiñ wax nañ ko léegi du yak koor ay ñam yu tuuti yu dess ci bëñ waye charte mu tuuti lool nak du yak bëñ manam manam du yak koor wax bu dee lo xam da xawa bari nga wan ko nak eh, boba day yak koor ga ci ci anam gog kon ñam yi dess ci gemmiñ gi bu fekke beñe bi da des ci gemmiñ gi ci biir xam nga am na ñam yo xam boko lek ay biski du gawa set yoy dañ koy waaye bu don fep tak ci biir bëñ yi rek yoy eh, mom du yak koor don yaa bëgg sax gën lu mel nit ki diw dara ci yaramam ci biira wala dara mag ci biir ba loolu du yàq ko ndax barab yooyu bën bën la yoo xam ne baaxoowuñ ak lekk gu yegg ci bàq dafa àgg donte loolu mën naa am tam xëy na euh, ñu bari duñ ko comprendre waaye comme boo xam ne ñu ko xëy na mën naa am bu di woon dara ci biir bi daal benn produit mu infiltré wu dem ca bàq ga euh, tam du yàq ko ndax du mën a transfert di dugg ci biir fa lekk gag naan nga te la yàq ko mooy dem fa lekk gag naan ga dañ wax lu mel ni gént ku gént di joteeg sa soxna euh, ci bëccëgu weeru koor Eh, lol inshallah du yakkor kon yoy yep ay mbir la wax dal du yakkor kon dal ñent mbir mo yakkor nak japp lek te moy lu sek egg ci bax nga mom bu nek ci put put gi génnaat du yak nan moy lu ndoxe mom no mu egg ci put wala mu egg ci bax da yakkor ba ca dess moy sey wala gennu man ni ba ca dess moy waccu te tay ko wala nga lekkat la nga waccu won yep da yakkor yu ci ne eh, bu fekke ci lu ñu tayef wala ciagante nga ja day waral nga fay wer yu nopi nga kafarat inshallah ñu ñu jotay ñu euh su fekke nak ak tayef lu nu teew ci ñu da ngay fay way do kafaara yu dud yoy nak muy doon junj yep mom euh, ben ci yakko lu mu seer bi jall ak yoy wala yu melni euh nga sax dara ñu bay jot nga di bay wala waccu not la genn te dara wat te ko wala ngay wan say loolu lor ya bari bari wala xel yu mel wala ngay genn di jot ak soxna yoy yep euh, du yakko su ko defee nag daañu sip ci koor tam ay mbir Eh, yu bari dañ ci tudd yéen sib nañ ci koor muy ñam ak lekk na wut ñu wóoru ñamal ko xorom sa wala suukar sa wala kaani ga donte moo koy togg eh, su fekkee nit ki def na koy tam war na mu macc aw làmmiñam bu baax la ca saf yëpp ba mu deñ mu yàbbi ko ndax su ko dara eggee rek day war a fay bu dee kooru fat niñ ko waxee léegi te su dee moo tay wann ko da koy yóbbu ci sax mu war a fay waaye war a kafaara bu dee ci weeru koor sib nañ diye lu mel ne tàndarma wala xeet yu mel non dal wala ak ndab nga bëgg tay sa dara ndab gu am tiafka nga diko xex lu mel ni yey ab singom donte doo ko pour bëgg ta tay dara wala nga yël sa dom aw ñam ap tan pour mu no wala noonu sib nañ ko sib nañ di fajj bañ ci wëccu wëru koor bañ bo xanda daa bënn nga di fajj faj ci bëccëg wëru koor sib nañ ko luut nga ragal ni boko defut mu jël la lor boko baye ba guddii man na la lor su booba nak duñ ko sib day war sax fekkee sa alkan da caa nar a taxaw ci yeex ko def euh, ak xeet dem noonu bokk na ci sib xëy na yooyu amatul léegi ëcc ëcc ngëndal naa ko def mu ne wëtteen wuñu daa ëcc di ko def ak gémmiñ xëy na lu mel ni uude yi daan nañ ko def moom itam bàyyi nañ ko léegi di jël dari di ko macc lépp loo xam daal lu ñuy eh, liggéey loo xam da nga koy sex ak sa gémmiñ di ko macc donte yooyu euh, xëy na defatuñ ko léegi bu dee am na fu muy xew ba tey yooyu dañoo sib ku koy euh, def moom itam ndax mën naa yàq koor ku ko def ko da nga wara a macc sa gémmiñ macc sa làmmiñ bam set nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga ko ah akhir xel non sim nañ ku wor muy gop ak yu demee nonu ngir bañ poussière bay jóge ca ngogn ma wala ci ñax ma dem ci putam ludul lola mën ta ñak so duñ ko sib nak bu dé tolam mom rek moko wone heure wala ko mën bu ko defut day yàqu su boba nak da wara ko liggéey kon lañ cay ay muy lo xamni mom manees na ko journée ba beneen jamono waaye su fekkee nag tool bi moom faaw nga liggéey ko bu dee da ngay faaw nga góob ko mbaa nga bàcc ko mbaa nga jëri ko te waxtu bi boo ko def ak yàqu-yàq am ca su boobaa waxtu nga koy def euh, poussière bala cay dugg dañ la koy jégal sib nañ yoo xam ni euh, foog jigéen la wala jigéen ji foog góor xeet yu mel noonu lu mel ni foo na xalaat ak xoola xeet yu mel noonu yëpp yoo xam daal donte xam na ni moom dara du ko ci fekk tam dara du génne ci moom dañ ko tere foog sa soxna ci weeru koor dañ koo sib xeetam donte xam naa ne dara du génn ci moom moo xam masiyu la wala maniyu su fekkee day sikki sàkka nag euh, ni dara dana génn ci moom euh, su boobaa day xaraam ca moom waaw donte su fekkee sikk sàkka na ko dara génnut ci moom koor gi dana wér ah su fekkee daal fekkoon nañ bu dee masiyu la daa war a fay euh, koor gi kese te kafaara du ko war su fekke da man ni da génn ci mo day wara fay ak euh, kafara kon ñu jox muqaddamatu jimaax mooy góor ak jigen di fa xet yoy dañ ko sip ci wéru koor euh, su fekke ni japp na dara du génn ci mom way su fekke ni ragana dara dañ génn ci mom euh, su boobaa dafa dafa dafa haram euh dañ cey tare te su dara génn ci mom nak te xamon nako day fay bu nopp kafara su ko ñew ci atep ku koram yaqku nak ci xet yooyu ku koram yaqku ci joxe ramadan nit ki su kooram yàqu ci ma daan day war mu jàppal des ci ba ngir màggal euh, ngir war maal euh, weer wa war maal weer euh, su fekkoon ne tey nit day fawee sax naam wala yu dee noonu ba mën ni génn ci moom kooram yàqu daa war mu jàpp la des ca ba du dagan mu continuer lekk donte la mu doge leneen la itam bokkut ak lekk daa war a jàpp am maa ko xam ne kooram daa yàqu nag ci lu joxe ramadaan lu mel ne koor gu ñu nizar wala kooru kafaara wala kooru fay ramadaan wala kooru coobarew jàpp la des ci biir du war waaw ci juuboo soo ci dogee wala nga doon loo ci mën def sax ba koor ga yàqu du tee la des ci bis ba da ko war a jàpp waaw bu doon koor goo xam ne nag euh, du koorug ramadaan moom koor gu ñu niseer la euh, ci ci ci ci ci ci nga war ko manam nesar bo xamni du buñu ñu nga xam ci bis rek la mëna doon wala koru kafara nga xam ne ko def ci yeneen bis wala fay ramadan mën nañu ko def bis wala koru coon mën nañu ko def yoy yep euh, du ci euh lolum do ci jàpp boo doogee koor gi lay ndax dang ko mën ko def ci benen bis kooru ramadan dañ ko mën def ci benen bis donte mën nañ koo fay waye jimmi bis bi dafa am xorma yo xam ne mën ñëwaat kon euh, day war ki dok ci koor mu jàpp mu jàpp moo xam ba muy dog moo ko tey wala teyu ko ak koor mu doon euh, kooru ramadaan wala nasru muhayyan ndax nasru muhayyan dafa am jamono joo ne jamono jooju rek ca la war a doon bu weesu dootu ko mën a doon moo tax dañuy bëgg ku ca toll itam euh, nga nga nga nga nga nga nga jàpp yeneen koor yi war yépp nag euh, moom boo ci dogee jàpp du war su fekkee koor goo xam tata tof tof la ko daa war nag lu mel ni kooru kafaar wala euh, kafaara koor goo weeram naan goo doon wala koor gu weer goo neser wala yu mel noonu nga xam ne ko boobaa jàpp du war fekkee da nga jàpp ngir la nga def lépp da yàqu koor nga xam ne ko war a toftale moo xam ne ngay kafaaral weeru koor ne saxari mutaba'in la ñu wax wala beneen xeet bu demee noonu nga xam ne ko war moom it soo ci dogee duñ la ne nga jàppal des ci bi ndax la nga defal lépp daa yàqu da ngay commencé waat zéro kon daal koor gi ñu bëgg ku ci dog nga jàpp mooy koorug jooxe ramadan wala koorug nazr moo ayan nga xam ne dañoo ràññewoon bis yi nga bëgg na woor nga xam ne bis yooyu dong nga mën a woor mën a woor yeneen yooyu moom lu mu ci mën doon soo tolloo foofu su boobaa da ngay eh, jàpp la des ca eh, bis ba eh, su ko defee ndax bisoo boobu daa am xorme ndax danga ko mën def ci beneen bis nekkoon su nit juboo ci juboo ci leneen sax Euh, naka noonu kooru la nag moom su fekkee nit ki da cee juubu day jàpp moom itam comme ku doon def kooru farata na ma daa kooru ne sa loolu tax mooy ginnaaw des ko dut fay des ko dut fay ginnaaw kooru naafila doo ko fay ci dogee kooru naafila soo ci dogee ñàkk fay ga koy ñàkk moo tax euh, ñu maye la nga nga nga ñu sant la nga wéyale ko doon nag yaa ko moom kooru naafila dog ci nga xam ne dañ koy fayloo su boba dañ lay wax ni euh, jërul ngay japp ndax dang ko rafay kon ku dok ci koor te tay ko wala mu ñakko tay da war la japp le bis ba bu de kooru ramadan la wéru koor la euh, wala muy koor go xam ramadan way dañ ko nazar mu ayan nga xam da nga neseroon a woor bis yi nga xam bis yooyu day wessu amma bu de koor go nak euh, du ramadan lu mel nga don fay wéru koor la xéet mel nga xam wala kafar nga ko ci benen bis bo bo do ci bis bo man nga ko ne lek ak loo dogee mën nga ko ne lekk ndax euh, su fekkoon koor toftalooy lam nga xam ni boo ca dogee benn bis la ci lépp lay yàqu boobu itam duñ la sant nga woor de ci bis ba ndax la jiit woon daa yàqu da su la goo xam ne nag euh, yaa ci coobare wu dugg ci di ko woor soo ci dogee te tëyoo ko dañ lay sant nga jàpp la des ca ba ndax koor ga doo ko fay su doon nag yaa ko tey dog ci kooru la nga xam ne dañ laa sant nga fay bis boobee su ko defee la ca des doo am xorma da nga koy euh, bu la neexee mën nga ko ne di lekk kon lol ma ji ku koram yàqu da wara a jàppale si bis bi eh, bu ñewé nak ci ngant yi tax ñu saña dok ngant yi tax ñu saña dok bokku na ca nit ki wéra di wal muy am bu tar yu bari la bokku na ci feebar nit ki su su su ragal ni bu woré jangoro ji day dolliku wala mu yéex a wér wala mu am coono bu metti lool ci koor gi day dagan mu dog waaw ah, boobaa day dagan mu dog amma su jortee ni sax moom bu wooree mën na ko jural alkande nga xam ne mën naa dem ba yàq ay cëram faat bakkan wala mu yàq ay cëram boobaa dog day war ci moom day xaraam mu woor ndax euh, wala tulqu bi aydikum illa tahluka yàlla daa mayut kenn muy euh, alak euh, boppam ah. loolu su fekkee feebar na mu noppi lañu wax su fekkee feebar na amaa su fekkee nag daa wér jot na day feebar euh, manaam feebar bu tar war naa dog mel ni ki wopp bu dee ci li Maliki wax ñoom dañ ni bu fekkee daa jortu bu wooree da koy jural feebar wala feebar bu tar day war euh, mu mu mu mu mu dog atteb ko feebar la yor xëy na léegi am na ay ay ay man nit ñoo xam mënu leen tudd comme ki am dafa yore tension bu yéeg maanaam lañ ci attaché attaché wala buy wacc ki rotation xam nga tension du wop jo xamni ñu mëna wax la man nit ñepp la seen deret di dox deret ji buy dox des fois mu gaaw dox gaaw yi lu ëpp ñu tension bi dafa yéeg nit mën naa waaye nit mën naa am sensibilité bo xamni manam tension dafa dafa mëna a dal pour lolu wala muy diabétique bo xamni wop dara jottu ko waye mom suukar su manki mo koy upp lo amna num day mën naa jël rési bo xamni ne mu manki waye wuur dal kon xeyna ñom lolu jox la leen raison ni nit ki mën naa bañ a itam te bu ragalé ni bu woré wop mu yoré attaque ko wopp donte amna ñu ni dedet ñeneen ñom dañu wax ne euh bu feebar dañu ba febar wa waye bu jorté ni bu woré febar tam man na ca dugg man na am nak lo xamni mënuñ ko tudd ay febar ni waye man na nek febar ndax nit ñi so xamni ki yoré ay diabétique la wala mu yoré yenen xéet febar yoy wala ay tension yoy nga xamni du jongaru ñuy tedd ni wop sangal dama koy tedd nit ki lay dox si saxam dund bu normal bu régime normalé mais am jamono yoo xam ne si manam maanaam man na baña wor nak woor su bu jàppee ne bu woré man nako andil ay jëf jafe su ko defee dog nak ci koor du yene amul yene <clears throat> mahzur bi du du du yéenee dog day dog rek bàyyi non day dog bàyyi non bok na ci ñi nga xam ni tam eh, may nañ leen ñu baña wor euh jigeen ji nga xam dafa ëmb wala muy nampal su dafa ragal ni koor gi man na koo lor mom ci bakkanam mok domam wala mu ko lor mom dong wala mu lor domam jigen ji ëmb wala mu am dom su jappé ne soore man na ci loro wala domam loro ci euh, wala ñom ñaan ñu loro ci su ah, may nañ ko mu mu mu mu dok waye amna tuuti wuté bu ci am ci ki ëmb ak ki nampal, ah euh, ki nga xamni ni euh, day nampal mom am na moyen bu mana def man na def ndax moom bu fekkee dafa ragal bi nàmpal doomam soow wàññi ko amoon na beneen moyen bu mu def mën naa wut bi wala benn xeetu meew bu jox jox doomam bu pour mu nàmpe ko pour mu nàmpe ko waaye alakulaan ñoom ñaar yëpp ku ci ne dagan nañu dog su koor gi jeexee ñu fay su gi jeexee ñu fay donte ki ëmb moom lañ gën a ragalam moom lañ war a gën a may mu moytu ki nga xam ni mooy moo mooy nàmpal moo tax ñoom ñaar dagan nañu dog dañoo war a fay ki ëmb. bu boobaa mom du joxe ak njot du joxe fitna du leel amma aji nampal ji nak eh, eh, day leel day lele waaw aji leel loolu mat baye xel la jigéen ñi ban ñox mi ne dañuy baña wor waye nañu xamni baña wor ci nampal day am lu cey teggu da nga war eh, kafar da nga wara leel fidya da nga wax jox ni ñox fidya da nga jox fidya boole walé ko ci te tey da nga fay tey da nga fay amma ki ëmb nak mom parce que mu da gëna bari risque kooka moom jigéeni wérut la ñu wax ba ñu jigéen wérut moom ko feebar la kooka moom bàyyi koor ga moo gën a indiqué wu ci moom su fekkee mën na ko def wàññiwul dara te ko wàññi dara waaye su bàyyee koor ga moom oh, day fay rek daal du ko ci war amma jigéen ñi xam ne day nàmpal nag moom nga xam ne dafa ragal doomam loru ngir soom day manqué wala moom mu ragal mm, yu mel noonu euh, su boobaa day joxe fidya bis yooyee bu koy fay day joxe fidya man day leel miskin waaw ah, loola mooy euh, su fekkee ne am na jigéen ji doom joo xam ne maanaam am na kenn ku mën a nampal doom ji te doom ja loola am na ku mën a doom te te doom ja nangu loola boo nampal euh, la gën a ràññi ko sax moom muy woo mu woor nag lañ gën a ràññi ko la gën a ko moom muy nàmpal su am na keneen ku nàmpal doom ji moo xam nit ku koy nàmpalal la wala boog sax muy euh, soow artificiel yi nga xam ne wut soow def ko ci bureau wala di ko jox su boobu lépp lu ci ne euh, da koy teggil ngànt loolu kon la gën a ràññi ci moom mii nàmpal mu woor ndax am na moyen yu mu def ba domam namp ndax loolu lañu gëna ragal ci lorange ji su fekke da yo rek ko xamna xeyna dafa bari soow lool nga xam bu bu namp lu domam soow mi day bari ba diisal ko ba du liggé ba yàqu itam yooyu ay ay nganta ala kul halal ku ci may nañ leen ñu dog ñom ñaar ki ëmb ak ki wor ki ki nampal ki nampal nak bu fay day leel inshallah euh bok na ci yi daganal dog moy tukki daganal na ci kuy tukki mu dog bu fekke ni tukki ba day tukki boo xam ne dañ caa daganal julli te mooy tukki boo xam du ak mooy yàlla te mu tàmbali tukki bi njëkk fajar ba ba nga xam dana àgg ca ber place ba mu commencé woon balaa fajar daal na àgg ci place bi nga xam ni fa la commencé fa la saña commencé wàññi julli na fa àgg balaa fajar jot ah su fekkee tukki boo xam ne daganaluñ ku ci wàññi du dagan nga dog ci su fekkee tukki tam ba set na euh, du dagan na nekk njëkk fajar su fekkoon dog na ca nag ci tukki bobu day fay way du kafar ndax tawil euh, qarib la noonu ko waxe won ci ginnaw ndax lim sukkandiku lu sax la du dagan nak ci aji tukki jo xamni fana fanaanoo euh, yene kor koor muy dog déedéet bo waré tukki fana yéene yene kor do saña dok ben sax euh do saña dok su day wara fay way du kafar nak ndax lim sukkandiku batay euh lu sax Eh, waye li gën ci aji wor nak su fekke ni day tukki su amul coona mu mu mu mu mu mu mu wor nak comme ni mu dem jamono bi ah wante suma xëy lakum ja alxuraan ñu mu muy jox ngant nañ wan tasu suma xëy lakum bu ñu wooree moo gën eh, dafa ak nak eh, ñeneen ña am na ñoo xam ne dañ ñi bu ni xanaa bi la yow ñom dañ ni day sip ñu woor ndax yonent bi saa dani laysa min al birri asawm fi safar laysa min al asawm waaye ah bu dee ñii maaliki na xanaa shaafi ak ñoom euh, dañoo sopp koor gi bu dee xanaa shaafi dañoo sopp koor gi ñoom ni même bu amut coono itam euh, na woor ba amut coono xanaa bi lay ñoom dañoo sib mu woor ndax xadis boobu ñu andi ñee indi aaya euh, bee waaye ala kulli kii tukki daal sañ naa dog waaye dog bi itam nag comme nii léegi confort am na ci ci moyens yi defe noonu su fekkee ne gis nga ni koor gi du la wàññi dara am na ñoo xam ne tukki koor sax moo dàqati ñoom su man mën nañoo woor du wàññi dara wuñu sunna bàyyiwuñu lu lu lu lu lu yàq daal incha allah mel xam naa kon bokk yi egsi nañ fi ñu war a yëkkatee jotaay bi su ko defee mu doon simission mission islaahu daal seen mbokk bala Balla Mbacké ñu doon waxtaan rek ci ci ci ci yi nga xam ne mooy yàq koor ak la cay war. su ko xamna xam dañ leen dig meen dañ incha carte borom di jafal serigne Abdou ndiay mi nga xam mom moom lañ àndalan ci ci ci ci caméra bi su ko defee xam di ñaan borom bi liñ koy ñaan rek té moy mu may ñu gudd fan nga and ak wër may ñu xéewal yu and ak barké way defal suturu sa and ak ñeegal su ko defee xam ne wasalliyan salliman ya khadim yaqrib ala wasati ilayka ya mujib sayyidina muhammadin bi alihi wa sahbihi eh, wa lasib su'ali subhana rabbika rabbil izzati amma wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وبارك حمدا لمن أورثنا الكتاب حتى به عنا نفر عتابا حمدا لمن أورثنا الكتاب حتى به عنا نفر عتابا مصليا على وسيلتي له خير الورى الذي قرائي قيله هذا وإني للذي يكفي الضرر عني توسلت بأسماء الصور فقلت راجيا قبول نظمي وأن أكون طاهرا من وسمي